gën noo gàtt noo tawféexi leen wóor ni yaa ko tooñ noo ngi ñaan ku jóg taxaw màggal sëñ Bamba yàlla boo gàttu fan jóg taxaw ca kaw nu màggal sëriñ Tuubaa na ko leen wóor ni yaa ko tooñ làmb leen addi Serigne Touba ñoo jox ko Serigne Khadim Gueye noo ngi ñaan ku ko def yàlla na nga fekke déwén yaa ko ko mel ni yaa am leeg ni moom mu leen wóor ni yaa ko tooñ ko am leen moom waaw wóor ni yaa ko tooñ Mbàkke du tooñ te boo tooñee jéggal la tin la ko Mbàkke du tooñ nit te boo tooñee mu jéggal Cheikh Ahmadou Bamba du tooñ waaw waaw nit da ko waa tooñee waaw wallaay Cheikh Ahmadou Bamba du tooñ nit da ko waa tooñee bu jégal Cheikh Ahmadou Bamba du tooñ waaw waaw nit da ko waa tooñee waaw wallaay Cheikh Ahmadou Bamba du tooñ nit da ko waa tooñee fa te amul njàmbu rango ok ak mag ak ndaw ci aw melo xale xale ba yàgg xar la gàggal ay la naam di jox ña ila tuguy ne gële gële waa mu nga ne ci bun Sipile ngolo Jolo lanyo kurai re ire ipu papula Lai lai la la Lokola Lure mu fab loola jox la ko ci pelaw Bamba waxaar baax ya jaaxal nag ay biir ma ñu kaw ña ak ñuy suuf ña naan yàlla yaa di buur fa jile tax ba la fekk naar ya way baax la la ñu xaadam yu ànd ak moo far soppi leen di buur ñu leen wóor ni Bamba ay waat gu mu soppi soppi na leen woon ni bambay waane kum topp soppi ko ko jiyal saay ras gaaya dina war ginaaru góor gay wataak ginnaaw Suleymaan la roy ci wàccu naa dee fu jël waa Mbakke dem leen ñu diini ngeen ti mbakeem daa tudar bendi ni mbakeem sangar gaa ngay dem Tuuba ta dawtil mateedi ko sangar gaa nga jëm Tuuba ta dawtil mateedi ko Kajoor ak Bawol Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof dangay walwale jamaat ka jàppoo xalaf xalaf a ca ñooy yoy ni bamba aaye pour yàlla moo ko def ku dabu bay ganaawal bamba ne leen ko moo ne leen ko sutubul ba dee dem na fi jaan yamaatu ne leen ko sutubul ba dee dem na fi jaan yamaatu بدر نار جهنم يا مالك بامبسطو tuubul ba dee dem na rijaalam yàgg ma nanu Bamba su tuubul ba dee dem na rijaalam yàgg ma nanu Bamba su tuubul ba dee dem na rijaalam yàgg ma nanu Bamba su tuubul ba dee dem na rijaalam yàgg ma nanu Bamba su tuubul ba dee dem na rijaalam yàgg ma nanu baral noon bi yow Muusaa gire gumba rañeewul dee ba jàngal leeram la dem ga jëgindiwul borom xol mu gumba raw borom gën yu feetagul loo garama ji laa tax ma fa wëy xol bu marmaral ma la wammaat kooka ngir ko maneef ngir tumba yor ci ko ba jullil nak ci yoneen ji kuy doomi asmi mooy baay Ibrahima tey baay Xaasim moo tax boroma am bindu kuy doomi aadama والآل والأصحاب يا أرم يا والآل والأصحاب يا أرم يا والآل والأصحاب يا أرم يا محمد ما لا واخلق والآل والأصحاب يا أرم يا أخلق والآل والأصحاب يا أرم يا أخلق والآل والأصحاب يا أرم يا أخلق والآل wala saafi yaaram ya wax na ko waaw dellu sant xayrul xadime lay la xayxuna madam ahmadoon fal fil ayne dellu sant xayrul xadime xayrul xadime xayxuna ahmadoon تقبل في الحين ورنا يلو سنت خير الخديم لا لا لا لا قلنا أحمد نفل في العين ما سلم جب تخوتك وسنت سنجوا maase leen àndandoo jóg taxaw ca kaw sant si Tuubaa jar na ko Seyxuna Ahmadoon fal fil xiine war naanoo dellu waaw waaw dellu sant xayrul xadiime lay lay la la Seyxuna maam daa Ahmadoon fal fil xiine war naanoo waaw waaw خير الخديم خير القديم هنا شيخنا عمد بل في الليل حق ورنا دلو دلو سنت خير القديم شيخنا ممدام أحمد بل في العين ورنا دلو سنت خير xayrul xadim xayrul xadim seyxuna amadou bal filine acca baydam baydam ahmadou may la nu tànno lay lay la la nu yóbbal ngëneel yu taaru ci diine baydam baydam lanu la du tànno lay la yóbbal bay daam nga deelu taaru nu tànno waaw la nu tanoo kon bonu yóbbal ngeen leeri taaru ci diine ay sunu waaji ku si yetlu gaaya ca baay lay lay la la la jógu tay def yoone sunu waaji waaw yetlu gaaya ca gaayat baawoon war yàlla te defu yoone danu daakaar waraay di sotuli yoon lay lay lala tey ku jóg ji bu dàq kër gëmu mi ne danu daakaar waraay di yombal tey ku jógu ji mu daaw ko daaw ko këral ga mu miin Mbàkke Balla danu daa dox waaw waaw di xëy di gontu ba dem daay lay la tey ku jógu war wata ak gaali sabine danu daa dox waaw waaw di xëy di gontu ba dem dar bàjjam ndar ne woon ndar ndar leen de fa jur lay ne woon ndar ñëw leen de fa jur rayra ndawal la wam gi ta santo layla la teraloo baay faati ak may la wam gi ta santo te santo teraloo

فقد إنما تلوك سمي أقبلا يتابلا دقنا إتالي لامبي باقي لنا إنما تلوك بلا أجا إلى دابل وإلى دابل دقنا إتالي لامبي باقي لنا dari naari yaa ngi toog yaa ngi tëndal danu dalal tagar gi tay biin dari naari yaa ngi toog yaa ngi nu tëndal danu dalal tagar gi tay yaanu nandal waaw ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaanu takkale naan koone yaa ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaanu takkale naan koone الأيان من الطبيب جاسي أتى يصدق منه تقلن نان يا من الطبيب جاسي أتى se ataya ndoxumeno takale nan mo ba للمانك كتن نيو وتسمو وركن شيخ بابا كوي الدين للمانك كتن نيو وتسمو تسمو وركن شيخ بابا كوي الدين nanu kañ Seexu Bamba ku wuyal diine nanu kañ nanu kañ Seexu Bamba ku wuyal diine nanu kañ nanu kañ Seexu Bamba ku wuyal diine nanu kañ Seexu Bamba ku wuyal diine nanu kañ nanu kañ bamba ku yal diine kan Seexu bamba ku yal diine fa atmur mak ya rab wa ya la ilaha illa wala nok sawa jigéen uurul ayna buru mak ya bu angiya nu fasa nu ko saf aw jigéen aw jigéen óorul diine aca jërëjëf jërëjëf say xubbam ba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf jërëjëf say xubbam ba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf jërëjëf say xubbam ba Ahmad Xawsi Bakke dogo nak Mbakke bala nuy misikine nak Mbakke bala ku jug taxaw màggal Sëriñ Bamba yàlla nga fekke wér bi déwén na ñëpp jug jaayu màggal Sëriñ Bamba jar na ko ko dabal ci néeg am di la du génne ci néeg gi loolu yéen ñu bokk ban dabal ak di ma la ilaha mu jenne yakin doli yakin boko jinne yam haddi yanu jinne jirir jinne xam ma addi mi cosaanoo mi cosaanoo am ñu dara bal na ci néeg gi xam ab diine yanu génne jig noone boole suñu xol xol def ci cofeel ak niine génne jig noone boole suñu xol te sunu xol sunu xol def fee ak diine waadu yoonu mag ñi aw bayanda di magal magal ñu rey ak noole waadu yoonu mag ñi aw bayanda ba yëram ndaw di màggal màggam màggam ñu rey ak noone yàlla sulu xibla yaa di siiru Tuuba ak ko ak Bamba dootul siyaare keneen ak demal ko ak dootul siyaare keneen ak demal ko ak dootul siyaare keneen dun siyaare keneen ba ëtt yanu sunu wirdo yanu doy ci muqaddam yanu sunu wirdo ba kebala yanu doy yanu doy yanu sunu ismullah yu doy nga yanu sunu ismullah benganu ene benganu alxembe ca naar yaa nu tere yaa nu xembe ca naar yaa nu tere yaa nu tere yaa nu teewani ili lamu ni sangoone yaa nu teewal li lambini sangoone yaa xaw rey bi daay dëkk li waajib yaa xaw rey bi daay ak buddu ko ni waa bi guddu njaar neene abe guddu njaar neene waa bi guddu njaar neene abe guddu njaar neene abe guddu njaar neene

Xadijatu bu jaloor ودان مجام أمينا لا دبايو بسيدي يا ولاد لا لا لا نمبل سوين جن أيوانا بلا أي صبرنا yow lanu gëndal lay lay la la lanu nampal seen gën ay ween lanu baayu bikir yeew lanu def nday bada ay subre lanu nampal seen gën ay ween

yanu nampal sa wér na gën ay weene yanu nampal sa wér na gën ay weene ay weene yanu nampal seen gannaay ween yanu nampal seen gannaay ween yanu nampal seen gannaay ween yanu nampal seen gannaay ween yaa di baayu miskin yi yow la doon def ndey aduna mbal sëween gën ay ween di baayu miskin yi yow la nu def lay banda ay sobre aduna mbal sëween gën ay ween say baxaama say jëgle kenn manu ko lay lay la la karaama si jëngo kenn du ko seene maqaama say jagle kenn mënu ko mënu ko xam say jagle kenn say maqaama say say jagle kenn du ko seen say maqaama say jagle kenn mënu te jego duko seene yorgata ajul kerame lay lay lay la xam nga ilmu dara yo xam nga yaqin nga tajul kerame man nga boromam mat boromam il mu diraaya ba yaqine ak mbëri di wa wallaay wa gaale wuñ la ci giw bi ay kay la mbëri di wa galebu galawul la ci géew be ba bi yow rek a daane mbar yow nga fi diine mbakke mbari diiwaan te galawul la ci géew be ay lay na la daane mbar yow nga fi diine ay lay na la mbari diiwaan te galawul la ci géew be yow rek a daane mbër ya woon nga fi diine. lu jàmbaar ya yow rek a daane mbër ya woon nga fi diine. lu jàmbaar ya yow rek a daane mbër ya woon nga fi diine. nuurun ala nuuri. sëñ Fallu Mbàkke mu di junóor noor yàlla sama awa musu jur mooy jaaratu laa ci Fallu noor haalandoo waaw yunawiruna sëriñ Fallilu am awa kusoo ko jur mooy jaaratula fallu nuurun alan layla alaaji fal di yunawiruna borom ñaari leen galla sam awa kusoo ko jur mooy jaaratula alan nuurun alaaji fallilu awiruna makki jël nga ndam li mam awa ku soo ko jur may jaaratula ay sa nuurun ala nuuri mani junuurun ala sam awa ku soo ko jur may jaaratula nuurun ala nuuri ribalilo jël nga ndam li bëgg leen la ilaha illallah madin ci nuurun ala sam aw busnu bajr wa jaaratillah doo ko jur mooy jaaratullah amrun alan dawla hadi sunayran wa لكم أو بسوط وجعارة النار على النور على جفل لغيرنا مكجل قدم لي من أو بسوط جر وجعارة النار قالوا لي أتباع askan baayam dem addanu bat bu fal ak saayam sabila najati baayam falilu kan baayam dem modon baat ba ak sañ ëllë billaa walu ndaw leen ndaw leen ndaw leen ak soxna awa ak soxna la ko julle soobe Mbàkke jant la far leer la ilaha illallah rabbullah leer ga nga julle la ji sami Mbàkke jant la far leer وأخرى جارة الله بلا أزل دام بجل زوبي بك جند الفرل لا إله إلا الله وأخرى جارة الله بلا أزل دام بجل sëriñ Faliloo ba jantu la Faliloo leeral na dunya wa uxra ba jawaay seex dootul am ci réew mi nagul ci réew aram ngir jaaratullah ba dootul am ci réew wala foo nekkul ci réewi arab gi jaaratullah maam sorori makka yo sorori tayba yo xubaa ci bay ñaar benn la muqaddas ab na tuuba sorori makka ya sorori ay baya ak di baytil muqaddas bam am na Tuuba fallu raayo nena xalifa billah billah sëriñ Fallilu xalifa billah Fallilu xalifa billah billah sëriñ Fallilu xalifa billah sëriñ Fallilu xalifa billah